être sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activer la cloche de notification. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi rafetlu ànd bi ak Equivox TV comme ni ngeen ko gisee nag ñu ngi fii ci rond point Liberté 6 fi nga xam ne fi la marché bi nekkoon ñu nemmeeku fi nag li fi xew muy déguerpissement bi nga xam ne ñu ngi ko fi amal. instant bii nii ñu nemmiku nag njàqare ci kanamu ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi doon daane fii seen doole di naxalu bile mbir lii nag dara waralu ko dul lancement projet BRT bi nga xam ne moom lañ fi euh, dënmal bu ko defee rek ngeen daal di topp ma ñu daal di taataan euh, kàddu yi. waaw yëge bu ñu si am moom mooy euh, xol bu jeex rek mbetteel ndax ñun ñëpp ñoo ko gis gis ngeen ñu fi nekk dajale fi nekk ay ay ay muy góor di jigéen. Euh, doon euh, suturloo fii di gañ seen pain fii euh, maanaam pexewoon ba créer seen propre emploi tey ji nga loolu lépp dafa dem tàbbi géej prétexte bi ñu jox nag moom mooy démarrage du projet BRT bi mais bu ñu seetloo constat tey li xew ak ministère ministre bi yor affaire cadre de vie ak environnement ni mu ni mu waxee da ngay gis ne dëgg la BRT war na war na fi jaar waaye tàmbaleegul dañoo yàqamti rek ndax euh, bëgg bëgg comme projet bi ñu am ñoom mooy ni nañu fexe désencombrer les artères pour ñi nga xam ni ñu nekk nañ si mbedd mi ñu jël leen fi daanaka seen yéene boobu la ñu la ñu la ñu wëyal ñu jàpp ni tamit loolu du solution ndax euh, cadre de vie baax na trop mais ñun survie la ñuy réclamer bala ngay wax cadre de vie da ngay am loo def sa biir tey. Euh, presque lu ëpp junni nit doon nañu euh, am seen am doon nañu am seen xëy ci mbedd mi muy fii kon dafa jaadu autorités yi bala ñuy defati ay euh, au lieu que ñuy def désencombrement rek pour désencombrer nañuy wut jiital ay solution nañuy jiital ay solution xam nga projet bu mel nii muy muy muy muy BRT dina impacter ci wàllu mobilité euh, urbaine bi mais dina impact tamit négativement sur l'emploi des jeunes so loolu yaakaar naa ne état moo ko war a bàyyi xel somme yi ñu jox nit ñi fii ni leen jëm leen fi jóge fi euh, daanaka euh, moom mooy moom mooy moom euh, mooy loo xam ne daanaka yow soo xëyee weer bi mun ngaa am lu ëpp loolu ñu jox la ko ay deux cent cinquante mille cent cinquante mille ñi la demal si foo xam ni fa nga doon xëyee loolu defe naa ni politique boobu war nañu ko mën a changé di ji di di di di di di fexe nu ñu ëmbaale les impactés ñi nga xam ne ñoo nekk travail de l'économie informelle nekk ci mbedd mi bu projet ñëwatee nañuy xalaat ci enveloppe financière bi nañuy xalaat ay somme yoo xam ne dina leen mën a permettre ñu jóge situation yi précaires yi mën a mën a avancer mais depuis début projet bi ñu ngi ko doon réclamer si rencontre yi ñu doon def ak préfet ak euh, waa CETID bañ dalaloon suñu xel te nañu ay ah, yéen kay buñ leen joxee am nañu yaakaar ne boo leen fa jógee dootoo leen nekk ay ambulant da ngeen di nekk ay commerçant mais à no grandes surprises gis nga ni ñu mujjee ak ñoom recensement bi ñuy def tamit baaxul dañu recensé ñi recensé wu ñu ne la indemnisation bi ñuy wax turu indemnisation la waaye tamit dañ ko jox ñi joxuñu ko ñëlee affaire daal dafa bëri ay anomalie ak ay euh, ay yoo xam ne kenn mënu koo xam yu ñu mënta expliquer yu laxasu si projet bi waa mbir mi dañ ko dundee ak métti rek xam nga métti métti na trop xam nga nekk fenn dafa dafa sutur la xam nga dafa dafa doole ngir bëgg loo am yóbbu kër ga tamit xam benn bés rek jëlee la fa tamit neexul si xol quoi neexul si xol bu ñu waxoon tamit ay raisons yu yoo tamit dal na xel daal wala tamit bu ñu jëlee ñu yóbbu ñu fanaan tamit moo ñu doon gënal ko mais jël ñu fii rek bàyyi ñu noonu tamit mel ne du ñu ay citoyen Sénégal tamit situation situation bu métti la bu métti la moom xam bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul yëpp peut-être que li ñuy yëg suñu xol mënuñu ko wax quoi mais métti na trop non ñu fuñ nekk comme yow ni ni ko gisee ñun ñëpp ñoo ci bokk yem quoi dañoo xëy benn bés rek ñu dañu fiy jóge benn délai wu quatre jours cinq jours la ñu may bi du tuuru ndàmpaay parce que ndàmpaay bi man je ñëpp ñoo am ndàmpaay benn minorité bu ndaw moo am ndàmpaay xam nga bu fekkoon bu fekkoon ñu ñëpp ñoo am mu neex quoi wala ñu bëri mais li si gën a ndaw parti bi gën a ndaw ñoo am ndàmpaay mais ñëpp am ñu ndàmpaay lool loolu loolu moo si gën a métti te ndàmpaay bi aw turu ndàmpaay lay doon rek mais nekkoon ndàmpaay boo xam ne mën na mën a combler vide bi bi bi am fii daal le fait ñu jëlee ñu fi yóbbu ñu fenn loolu moo gën a métti parce que lu ñu doon gënal mooy nga yóbbu ñu feneen moo ñu ne jox métti na trop métti na trop ndaxte maanaam mbir su fekkee da koy yëngu di daan sa doole ñu xëy xëy ñëw yëkkati la dina métti ndax liñ naan jox nañ ñu délai dele boo xaay da na la ajjuma dinañ fi ñëw yëkkati ko ajjuma ba mu ñëwut ñu ne toog leen ba alterné altane altane jotagut sax ñu ñëw yëkkati métti na am na ñoo xam ne bett na leen ndax am na ñoo xam ne dañoo wayaasi woon kon métti na te lii doxalutam réew ndax li tax doxalutam réew tey da ngay xool fii ñaata doomu adama ñoo fi nekk taxawaalu te fii leen doon suturoo di fi daane seen doole kon suñ xëyee xëy maanaam yëkkati leen bàyyi leen ñu dem noonu dina métti ndaxte procès bi li si laxasu dafa bari li si lëndam te jógugu dafa bari ndaxte nee nañ cinquante quelques millions dugal nañ ko Liberté 6 te loolu amut c'est foo loolu nañ ko topp xam nga projet bu génn ko ñu commencé tëgg wëndeel moom du nekk projet boo xam bu jub la lool part loolu ñun Macky Sall gëstuñu si dara ñu ambulant yi sooy xool ñun ñoo koy dimbali ndax li tax ñoo koy dimbali fii Liberté 6 bi muy nekk Liberté 6 dëgg mbalit lañ fi daan këp mbalit fii rompe bi mbalit lañ fi daan këpp dafi agressé nit ñi ñu ñëw nettoyé ko mu jekk defar ko tey am na agresseur yoo xam yi tey jii dugal nañ leen suñ biir ban dem ba bàyyi agressé di jënd di jaay di commerce fii soo fi dikkee samedi sa yi jigéen dañ fii ñëw di tànn di wër di jaay waat kon loolu tey jii li su demee nii ñu yëkkati ñu jox ñu yóbbuñu feneen mooy lor nañu. loolu moom démb ministre bi nee nañu wut xalaat ànd ak maire pour jéem a trouver ay solution waaye gëmuñu ko ndax loolu dañ ko waroon a jiital day loolu li may wax rek boo jëlee même rond-point Liberté 6 au delà de rond-point Liberté 6 barki dem université temps yi la passé baa politique bi ñu indi daal moom mooy ñoom nañuy désencombre désencombre rek te loolu seen kaw lay waat ndax quatre-vingt-dix pour cent de la population active ñu ngi nekk secteur informel tey yëkkati nañ dëgër yënte na yëkkati nañ liberté 6 mais mënuñu dëgër piir ni ñu gis ngeen ñaa ngi taxaw nit ñi dañuy watatu rek jéem a xool demaat si beneen artère du solution il faut que état mu jël responsabilité am jéem a trouver solution définitive jéem a wut ni muy defee ay prêt pour def ay yenn projets yi na jéem a wut xaalis def ko ci askan wi def ko ci njabootam def ko ci euh, ñi nekk ci mbedd mi di góorgóorlu daan seen. ni la mën a demee rek waaw dañuy sant yàlla daal bu baax a baax a baax xam ne jeexul daal li may wax sama gars yi daal ñu gën a fasaat jom. ku ne bay waar rek ñu xam ne yàlla jeexul daal. non gars yi jëluñ seen i bagages gars yi jëluñ seen i bagages kenn ku ne renseigné nga say bagages affaire bi daal moom métti na métti na mais kenn ku ne daal jël nga say bagages man moom damay wax te yàlla tax quoi gars yi ñëpp jëluñ seen i li fi des ay bant la affaire yooyu noonu yooyu la gaa yi taabal yi yooyu la fi gars yi bàyyi te gaa yi ñoo ko bugg ñoo fi bàyyi waaw non instant bi nii pour l'instant man déggaguma fenn fu nu man li ma bëggoon a wax mooy au moins nit ku ko jëlee fenn war nga mën a def différence quoi nga teg si moom ci loxoom loo xam ne nii carrément moom au moins dina bëgg sax ñu xam ne jeex na jeex na quoi man loolu laa amoon lu may wax. non ndàmpaay man gisuma ndàmpaay yàgg naa fi trop a am naa fi sept xool mais yàgg naa fi trop gisuma ndàmpaay te lu ñuy joxe ci marché bi damay joxe ak samay moroom yi moroom nag bari nañ ci marché bi ci biir ak ci biti kenn laalul xaalis. te lu xew ci marché bi dañuy génn seen xewal joxe man loolu laa gis waaw. am na bagage yu fi desan am na ñu fi desan du ñëpp du ñëpp ñëpp génn seen bagage du ñëpp a génn seen bagage ndax su nee la may nan la ba lundi dimanche si guddi ñoom ñëw dan lay bet ndax man man bin may woo boobu maa ngi Tuubaa di ñëw damaa ñëw fekk oto yi gaare waaw ah, am na yu fi des waaye nag alhamdulilah lu mu si mën doon dan koy sant yàlla xam ne tamit ñun ñëpp ay doomu aadama lan fii ñoom liñ jàppan jàpp ne dañu day taxaw riposte danay taxaw xeex wala déedéet non non ñun suñ bopp doxuñu si yooyu te ñun dëkk bi suñ ko defaree ñun lañ ko defaral waaye nag defar dëkk ba mu rafet dafa pare sa sa njaboot lekkuñu naanuñu amul sens amul sens Macky Sall ñun soo xoolee ñun ñoo ko dimbali waaye dimbali ñu ndaxte dañ ne ndaw lu si nekk état moo lay wutal liggéey ñun ñoo jël ndaw ñi di la wutal liggéey ndaxte kenn ku si nekk sa place embauché nga fi ñaar wala ñett kon nga xam ne kon yaay dimbali état waaye état dimbali si sa dara waaw waaw jërëjëf. parce que loolu bettu moom parce que loolu yëgal nañu ko bu yàgg waaw no waaw non stress laa koy dundee damay dem seeti leneen lu may yàlla may mu jël parce que xele laa rek damay liggéey lii mu moom sama wërsëg nekkutoon fii kese de ku nekk ñaan nga yàlla avancé génn feneen dem fii nag dafa dafa dañ fi nekkoon rek pour pour passe temps rek pour beneen yoon génn dem suñu yoon waaw ah, génn naa samay bagage parce que am naa am naa résultat bu leer wax nañ ñu ko kon génn naa samay bagage bu yàgg non non non te luñ fuñ nekk nag ah je sais pas da dem laaj délégué bi ba xam non man moom jotuma waaw ndàmpaay yooyu turu ndàmpaay la ndax xamal li tax turu ndàmpaay la su doonoon cent personnes jàppal trente personnes yooyu jot ñi si des jotuñu yaa ngi dégg moo tax ndaw si lim ne ñëpp jot nan te kenn ku si nekk lim jot du ne dama dafa tuuti am na ñoo xam ne nii am na ñoo xam nii ñu ngi jot deux cent soixante trois mille ñenn jot soixante kii euh, cent soixante quinze mille du yaa ngi dégg ñenn ñi cent vingt cinq mille moom lañ jot ku ko dégg jàpp ne turu ndàmpaay jox nañ ñu xaay joxuñu xaay lim ne moo fi dugg six million c'est faux dugg fi loolu nañ ko audit xool ba xam wala ñu xool këyit ya fa nekk génne këyit yëpp ñu xool livre six calcul ñu fi dugg délégué yi suñ leen wooyee dañ leen génn liste ñu fi jot ak ñu fi jotul ñu calcul xool ba xam ñoom leen ne moo dugg Liberté dugg na fi wala dugg fi loolu suñu ko naree jox bu ñu ko jox nan ñu ko wutal bërëb tabaxal ñu ko dugal ñu fa moo ñu gënal. voilà chers téléspectateurs ñoo ko doo njàqare nag moo am fii nii ci ñi nga xam ne ñoo doon jaay fii ci biir marché bi di leen jox daje beneen yoon ci yeneen. Si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.